salaamaaleykum internet du Sénégal alors tey ñu dalal fii Abdou Galass euh, génne album récemment gis nañ clip bi ak yooyu noonu ñoo waxtaanee moom ci carrière am ma bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di bëgg yen ñëpp di leen char euh, di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen. alors tey maa ngi koy wax sànq euh, album nga génne yaa ngi ma koy yaa fàttaliku nga wax ma un peu album bi euh, kañ nga ko génnee ak euh, promotion album bi. waaw album bi moom ñu ngi ko génnee presque si jamonoy Covid bi lañ ko génne quoi ci la génn bi bi Covid bi di waaj jeex ci la génn mais nag ñu ngi si promo bi parce que ànd na ak ñaari vidéo si beneen vidéo bu mujj bi ci lañ nekk nii nii quoi. Mhm. six titres la quoi mu tudd kaay déglu. album bi lan lan lan nga ci def ba yan thème nga ci abordé mën naa xam un peu album bi lan moo ci lan moo ci. si album bi am na euh, am na ay thèmes yu bari parce que am na bul xoolu ñaaw am na yaa tey am na yëngatu euh, ku ku xool daal di nga xam ne am na ay thèmes quoi parce que woy moom. dëgg mun nga ambiance mais tamit way itam daf ci am solo trop quoi ku ko déglu moo tax ñu def ci kaay déglu ñu tuddee ko kaay déglu ku ko déglu di nga dégg mooy sa premier album bi nga génne. waaw si si mooy sama premier album. am na nag ay single yoo xam ne jaal na def naa ko def naa single. Bamba comme euh, xale bi. Euh, si corona bi tamit woy nañ si. def nañ ay presque trois single avant ñoo def album. Mm-hmm. mais album ba mu génnee ci est-ce que euh, Covid bi impacté wu la un peu. waaw xawoon na ko impacté tuuti mais nag. instant moment boobu nga waroon génnee album bi. waaw waa mais c'est que xam nga di nga programmer parce que Covid bi mën nañ ne. def na troisième vague. xaw ma deuxième. parce que nga génn di nga kii taxaw après des seen mbaay xalaat ne lii jeex na nga génne finalement mu génn si diggante mais après bi mu jeexee moom gis nañ suivi parce que gis nañ ne après mi ngi si pro moom parce que ñu bari ñu ko découvrir woon ñu bari ñu ngi koy découvrir parce que ñu ngi dem si fi ñu war a dem ñu ngi dox si promo bi. te projet yeeg lépp mu ngi ñëw kon gis nañ ne instant ni mi ngi ci yoonam quoi. mais est-ce que si musique bi sa côté mi ngi dox est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp. ah bien sûr génnee album macha allah waaw ñu ngi euh, parce que am na ay projet yoo xam ne mi ngi suñu kanam. Mhm. Euh, dañuy dañuy ñaan suñu borom yokk. Mhm. ndax bu yokkee rek euh, bu yokkee day gën a baax quoi parce que bu fekkee da nga opté benn affaire muy musique nga koy dund di ko def moom kese da ngay ñaan boo ci nekkee da ngay ñaan yàlla mu yokk suñu borom boole ñoo benn label nag bu am am solo bu nekk Paris EDB production moo def album bi. teg ay projet am na ay concert yoo xam war nañ ko def si décembre bi mhm. bu ñu jàllee si concert yi war nañ dem voyage Paris le 22 janvier kon defe naa album bi ngi si yoonam quoi. Mhm. di ñaan yàlla suñu borom kon ko bu mhm. euh, ba pare ñu ngi koy teg ñu ngi koy bàyyi xel daal ñu yàlla suñu borom gën a yokk rek. su ma la doon bi ban moo si it bi ban ban la la nit ñi di woo ne la boobu morceau boobu mooy seen. seen euh, préféré naa ne album bi. Hmm. du li ma ko woy quoi mais morceau boo ci déglu it la ku dem découvrir déglu ko parce que parfois nit woo la ne man yaatay bi laay bëgg parfois ñeneen woo la ne la man yëngatu bi mooy sam morceau parfois ñeen woo la ne la saf sàpp kon am ñoo xam dañ lay woo sa ne la baalal ma bi musicalement moom laa sentir ñi ne la bul xool lu ñaaw am na ku ko déglu ku déglu di nga xam ne album bi nekkul comme benn woy rek moo war a moo war a def yëpp mën na nekk yëpp mun yëpp mun na def buzz yëpp Mm-hmm. bu ñu génnee ci album bi nag foofu laay njëkk xam nga ñun moom question yi day ñëw rek directement ah. noonu doogay ñëwaat après sa <laughs> parcours retourner en arrière noonu émission bi alors euh, sa mag gën a xam Galas mm-hmm. yow euh, kañ nga commencé musique kañ nga commencé di way man nag dama mbapat loolu xale yi naan mbëri naan dama mbapat jaar mbapat loolu dama ko def mm-hmm. parce que mën naa ne bi ma toppee si ginnaaw Galas di ko aw ay simb laa ko njëkk doon aw jóge ci simb yi dem si làmb yi jóge ci làmb dem si kasak ay ngénte ba pare ba mu mu def premier album moom ma nekk ci ginnaawam di ko aw di aw ba si yàgg mu jigi may jouer première partie di ko jouer première partie booy yi di woy yëpp jaar nañ ci suma ginnaaw may jouer galas première partie bu ñëwee maa leen ni xaalal comme kan koo lim koo fi ci waykat nii jaar na si man bu ñëwee maa maanaan galas diw ñëw na jox ko mu woy comme kan. Hmm. mooy artistes yi ñu euh, dégg nii Sidi. Sidi Diop hmm. Blue Saxo fekk na mu Blue Saxo ba tàyyi Hamza moo ñu boolee sama benn frère. Mhm. fekk na mu Blue Saxo ba tàyyi ñëw bu ñëwee ma ne galas di ñëw na mu jox ko mu woy Tarba bu may nekk Petite Côte di fa gérer man la doon aw. Mhm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen moo tax euh, mbapat dafa am solo. parce que boo mbappatee rek lu jot suñu boroom daf koy yombal. mais Abdou ñooñu ñooñu fu mu nekk nii ñoo la xaw a raw ci musique bi de. Hmm? ñoo la xaw a raw de ñi ngay wax nii ñëpp nga jox leen micro te ñoom. ku la jiitu na la xaar mais man boobu dama dama dama am lu ma bëggoon rek. dama nekkoon ci yoon nekk ci suma carrière ba pare di def benn affaire mu leer ma ne lii may def dama ko war a togg ba mu ñor ma soog a génn mais jaam ñi bu ñu dégloo. déglu Abdou Galas ku ko déglu dina xam Abdou Galas. ah Abdou Galas yéex na nag de yéex na de waaye mënoo jox ñoom sii di micro ah Seydina jox ñoom Ela euh, kii lu mu euh, Tarba ah? ñoom ñi ngi tëgg di feesal te mais yàlla li mu yor du jeex yow xam nga dégg ah. euh, tey jii nii buñ ma invité fii nii. Mhm. suñ ma invité fii nii am na lu tax. du dëgg. saf sapp bi waaw. waaw am na lu tax. Mhm. te loolu noonu soo ko xaarul du ñor déggoo li ma la wax dafa ah, am loo gars yi dañ lay raw yi nii moom ñu ngi ci suñu yoon. Mhm. parce que nekk ci suñu yoon moo tax ñu def album nekk ci ay projet boo nekkul woon ci sa yoon da ngay nekk fi ngeen nekk yàlla dogal na suñu borom suñu grand suñu frère euh, ñaanal nañu parce que dañu toog nag dañ dañu nekk si ginnaawam dix ans dañu ñor xomb instant yi dañu ñor dañu dañu ñor xomb ku ko déglu ku déglu dugg. tàppe Abdou Galas déglu di nga xam ne Abdou Galas mii nii jaar na fa mu war a jaar te loolu moom solo te yàlla li mu yor du jeex du ko jox lu dul doomu aadama te showbiz bi ñu nekk nii nekkul ci loxo kenn xam si loxo kan la ne suñu borom ak ku liggéey. Mhm. moo tax ma gëm ne ku ma ci jiitu xaar ma maa ngi ci yoon bi di ñëw. Mhm. mais est-ce que yéexul tamit. non man moom jàpp ma ni yéex na. wala yàkkamti woo. non jàpp ma ni yéex na parce que man carrière euh, musique dafa laaj patience. musique dafa laaj patience. bu fekkee da nga yàkkam ci rek lu baree baree baree baree bare am na foo xam ne nii boo fa tollee lu baree bari mun nga taxawaat stand by benn temps kon lépp looy def rek da nga ko war a jàng doone danga koy jàng nag sax ba mu mokk mais ba tey jii nii fu ñu la fëgg. nga jaar fa def li nga war a def te loolu sant nañ ci yàlla bu baax a baax nag. xam nañ sa mag galas dafa mën way est-ce que nekk woon ci ginnaawam laqatu ragal nag génn sa bopp. non c'est le sang nit li nekk ci yow li nga nàmp deret lay doon ci yow heure bu yëngoo nga woy du boq ak galas ndey ak baay moo tax may woy mais am nañu ñu am nañ ay frères ñoo xam ne woyu ñu am ay sœurs ñoo xam ne woyu mm-hmm. kon man dafa am luy nelaw ci man te dafa war a yeewu dafa yeewu dafa jot. ah 10 ans mi ngi nelaw si yow rek non déggoo ma ne la dama newoon ci ginnaawam. di tarbiyu mais est-ce que lu tax génnoo benn instant génnoo ñu single te nga baat mën nga woy boobu jotul. ah jotul parce que boobu man pareegu ma. d' accord instant yi nag dama pare. da nga pare waaw. waaw lépp taxaw na daal pour dugg ci biir ga <laughs> pour dugg ci biir affaire bi. instant yii dama pare boobu pare parce que mu jaaxal ma ah. baat bi neex na. Ah. mën nga waye mhm. ah lu tax nga doon xaar boobu ba tey 10 ans dafa bëri de. dafa jotul lu jot suñu borom daf koy yombal. Mhm. tey fan nga teg sa tànk nag ci musique bi. suma tànk si musique bi. fan nga fi ténor yu mag yi nekk. waaw fa laa teg sama tànk. fi ténor yi kan la fi ténor yu mag yi nii ténor yi moom boo ci jëlee Youssou Euh, jëli si Pape Diouf. Mhm. Waly mhm. amul keneen koo si teg man Abdou Galas su may jël référence si musique mhm. wala bëgg a nekk dara Youssou Ndour rek laay teg référence du keneen koo xam ne nii dama koy teg référence wala dara si kii. parce que xam nga lu tax dafa am loo xam ne dama ko gëm mu nekk ci man am loo xam ne nii dafa nekk ci man ba pare nii dafa war a yeewu jaam ñi gis ko kon man moom rek laa xam nii nii nii nii moom laa teg. fu foo xam ne nii nii nii fu ma bëgg a àgg si musique tey war naa si moom nga koy xool daal waaw mooy sa référence moom nga. mooy sama référence. Mhm. alors euh, tey euh, génne nga album Saf Sap bi nga génne ko waa ñu mhm. bëri nag di wax ne titre euh, ni nga tuddee sa album kaay déglu mhm. ak titre yu nekk si biir album beeg yooyu noonu ambiance bi dafa bëri waaw xumbu. déglu nga album bi. non benn morso boobu laa ci déglu wala ñaari clip. déglu yeneen ah. musicalement. boo ko ñi li ñuy wax man man bu man waxuma man de nit ñi li ñuy wax dafa bëri. ah mais léegi ñi koy wax noonu. dama leen di wax ñu dem. Euh, dem ci kii EDB production ñu xool album bi xool li ñu dugal dem ci plateforme yi ñu déglu bu ñu dégloo musicalement dinañ dégg bu ñu dégloo. ambiance dinañ déglu. bu ñu dégloo paroles yi dinañ déglu. bu ñu dégloo thème yëpp dinañ dégg. bu ñu dégloo après ñu jugé. Mhm. am na ñu déglu jugé mais boo dégluwul mënoo jugé. mais yow jotoo ci ay critiques yoo xam ah, ne ñu la defaraatal critiques ma ci déglu nag yi ma ci dégg yëpp positif la du négatif. ah nag premier album rek yëpp eh, positif. waaw si damay wax rek. Mhm. du ma wax loo xam ne nii nekkul quoi sant yàlla xëy na suñu borom. parce que ñu bari yàgg naa di jouer ay mariage di woy ay ñu bari daje naa ak ñoom si programme yu bari. Mhm. kon yàgg naa mbappat yàgg naa mbappat te defuma album. kon miin naa live. album dama dem studio Papis Konaté fa laa njëkk a enregistré ay live. live yooyu ma dem ci émission label woo ma direct. de Paris signé ma ma nekk mu defal ma album teg ay projet kon sant yàlla. parce que am na ay am naa sumay morom yoo xam ne ñu bokk ñoo ñoo ñoo ñoo juddoondoo amaana ñoo yaroondoo mm-hmm. amaana ñoo maase. te xaj na li ñu def si musique defuma ko ci. suñ borom may la label nekk may la si kon da nga war a liggéey nga foncé nekk sa yoon xam ne bu yoon jeexul waax si lu jeex. Mhm. Euh, nan nga gisee musique bi instant bi nu muy doxee yàgg nga si am nga si expérience parce que 10 ans boo ci nekkee dunda euh, dundaw teg fu ñu ndaw ñi fu ñu leen teg ku ku mag nga xam nga expérience nan gisee musique bi fu mu nekk nii instant bi surtout mbalax bi. suñu mbalax bi ñu def. Mhm. waaw am na lu si baax. am na loo xam ne ni tamit teguwul mais par doo ñëw ne lépp dafa bon. parce que lépp bonul. mais man man Abdou Galass li ma gëm mooy su ma waree ambiance dina ambiance mais su ma waree woy damay woy ñëpp dégg. parce que euh, buzz gi yëpp fi lay bàyyi talent mën du jeex mais bu ñu la forcé ba nga nekk tamit ba nga yéeg tamit yàgg yàgg da ngay wàcc. mais bu fekkee li ngay def dafa nekk ci yow nga mën ko ba pare respecte ñëpp nag surtout respecte jaam ñi respecte say fans ah suñu borom mën na la dimbali wan loolu laa am ci ku may conseiller muy suma morom mu la dara muy népp li lépp lu muy def na ko jàng ba mën ko am na solo trop parce que boo mënee sa fit dafay yokk boo mënee doo ragal mm-hmm. Mm-hmm. te li may wax ñi ngay koy déglu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi déglu bu baax li may wax ko Mhm. ah album bi génn na léegi lan moo ci topp est-ce que fas yéene nga joué nag pour nit ñi gën a ñëw fekk si la. incha allah. Mhm. ñu ngi waajal 31 mm, décembre rek ñu ngi may waa ñaari tali concert bu mag jour 31 décembre. Mhm. Euh, te bu ñu jàllee si loolu tamit ñu ngi waaj suñu Sorano. parce que tamit étape par étape la. te bu ñu jugee Sorano ah instant bi Galas mooy euh, roi Sorano de. ah, ah. gisoo couronne bi Galas mooy roi Sorano de. si waaw mais man Galas sama fierté la soxna si. xam nga bokku ndey ak dafa neex. dafa neex dëgg la ñu ngi woy nag mais ñoo bokku deret ñoo bokku ndey ak baay. Mm-hmm. Sorano maay fa. Ah, waaw ah maay fa ñëw jàppale. def ba mu neex moo normal. waaw def ba moo tax ma ne la. moom su jaaree Sorano. Mhm. man damay ñëw rek su ñëwee damay jaar rek. daabali daal dem sama yoon ragaluma loolu. waaw moom leer mhm, di di béggee nag. <laughs> waa xombal di béggee waa xombal suma commune ah. Mhm. foofu xam nga fa laa juddoo. ma leen di béggee bu baax ñaari tali ndakaar Dakar. aslem 1 ba 2 ba waagu ñaay dañu ma bëgg fas mën naa ne Abdou Galas moom euh, wax dëgg yàlla soppe yaa ngi fépp. Mm, di leen wax ne nañ xaar maa ngi si yoon bi di ñëw. Mhm. su mu ñëwee ñu yëngal bu mu yëngu. <laughs> kan nga bëgg a defal duo koo xam ne nag sentir nga ko bu baax bëgg nga bëgg nga liggéey ak moom ci benn. duo ah. Mhm. waaw man nag xam naa ne moom man Abdou Galass ah bu mu fekkente ne nii tey su ma doon def duo su ma mënul am mhm. def ak moom duo ah su ma paree Galass laay defal duo su mag. ah Galass nag yomb na nag. ah si non yomb na dama lay wax exemple maanaam xam nga lu tax loolu. tey du ko fi jéegi di def ak keneen. parce que dafa am lu bari loo xam ne daf ko def si man. mais pour leneen ñeneen leneen ñi no non non man moom li nekk si li nekk si man am na loo xam ne nii maa ngi koy maa ngi koy yëg ci suma boppu quoi. di ko sentir. tamit dafa am beneen formule boo xam ne nii nii musique mbalax bu nekkee ci yow nga nàmp ko am na beneen musique boo xam ne moom nga war a gëstu. Mm-hmm. du ko yow mbalax rek chaque jour ci ngay nekk te yàlla dogal sonorité yi daal sonorité yàlla dogal na ci côté boobu noonu ñu ngi ciy gëstu ñu ngi ciy liggéey ah. te bu ci mais bu ñu demee ba ci kanam ñuy déglu di kii dinañ xam ah kii fan la doon waxee wala kii fan la doon kii macha allah loolu moom solo ko mm-hmm. est-ce que euh, dernière question nit ñi am nañ euh, artistes yi ubbil nañ la est-ce que ba nga ñëwee tamit album bi génn na jàppale nañ surtout Tarba baay bi nga bokk ak euh, Grand Dakar ak côté yooyu. sama première. Mm-hmm. premier concert am bi man la man la invité man la def invité d'honneur euh, ma ñëw ñu partagé ma woy sama album bi mu génnee dama dem caravane bi dama dem ba këram dugg mu jënd ci album bi lu bari dama lay wax ne la aar ku ne xaj na ci seen du asamaan jarul buuxante fu waay seen da ngay gis man abdu Galas xam nga lu may concurrencer mm-hmm. liggéey génne ay génne lu nice koo ko déglu béggee parce que tamit musique bi ñuy def fo dong la kenn moomu ko kan nga mës dégg mu ne la maa moom way mës nga ko dégg mm-hmm. li ngay def kan moom kan moom ma ñëw ne moom daf ko moom kenn moomu ko yàlla suñu borom mooy dogal ku ci nekk xaj na ci te ku ci nekk li nga ci war a li nga ci war a jot boo ko gëmee da nga koy jot mm-hmm. moo tax man noonowuma kenn mais dama gëm ne tamit nag li nga xam ne nii dama ko moom damay jëm a ñëw jël ko damay ñëw jël ko dem sama yoon incha allah. looy tàggatoo. ah di bëggee ñëpp nag. ah tàggatoo bi de ay way nii balaa ngay tàggatoo noonu noonu di gërëm ñi da ngay tuuti de. man de bu may tàggatoo Serigne Saliou way borom xel kom jaag borom daara yumul borom ñaari daara ca ngaabu eh. njoowaan gee jaroon xay ga jirim yi jooy nañu bayu yi jooy lanu ay fu ni ku daan tam tamal ay xale sëriñ saali muy bàyyi sëriñ siix saali waaw sangub siix bi ci mam bam li xaadatul wujuuri wal masaali woo bi bi wal jës bi way ni saali wooy saaliw su ma paree ci sëriñ saaliw damay dem ci abdu galas la may woowe waaw falo bu sa jax réew ba càmmañal mareema kunte yaay mbeen kaagali jumaa ji talampi miire armeeri bu max ñeenti gëdron yi ba Tuuba Abdou Galas la nu may woowe may soppeep maam Abdou Aziz Si Dabax Malik waa jooju dama ko bëgg loolu ngu njaay biram xujjatam mbaalo njaay biram xujjatam ay minu nu bay jeex Dabax Malik ay rakki mbay mam alaaji Maalik jàddu fat njaay mi juddoo gaaya Maodo Malick mu juddu gaaya diggante risaat dool ak dagan la dem la njande dem ndar del siwaat waawoon 1822 ca la jëkk sampi daaraam ah Ah, loolu Sénégal rek la am te bu ma bu ma bàyyiwutoon damay dem Laayeen su ma jógee Laayeen dem Medina Baye su ma jugee yooyu yëpp fu ma neex dama ciy dugg te li nga nàmp deret lay doon ci yow mhm. saabu bu yëngoo nga jóg woy du da ngay woy ñu lay tegal ay effet wala ñu teg ay clavier yooyu dama bëgg xale yi déglu ñu déglu bu dee kat nga bu ne bu boo acapella rek war nga mën a woy lu la neex nga dem sa yoon te man Abdou Galas bu dul instrument bu dul dara tey su ma la doon woy nii rek bu ma tàccoo mën naa la woy li ma lay woy te day dugg sa xol te danga nga li nga ma war a jox da ma koy jox boo tax man la da koy jàng da nga koy jàng ba mu mokk dix ans du hasard du benn fan dama gëm li nekk si man dafay nelaw na ko jaam ñi découvrir déglu kan mooy Abdou Galas parce que xale wayli wayli bi ñëw na dafa leer mhm. yow xam nga da ngay déglu ah. te noppi gar mi nga yor xale wéyli wéyli bi nañ ko déglu bàyyi ko xel xam na lim moom dafa ñëw pour jël ko loolu rek. Mm-hmm. macha allah kontaan nañ ci dalal la. koy maa gën a bég site bi nga xam ne da koy yëngal Sénégal. Mm-hmm. da koy yëngal macha allah xam nga mooy li may faral di wax rek nit suñ la wonee rek ñu xam la parce que nit judd na màgg ba suñu borom jël ko mu am talent deewaale ko kenn xamu ko. kon bu fekkente ne danga am ñoo xam ne dañ lay wone di feeñal sa talent di ko fësal yow mi ñuy wone waroo ragal te ñun ay Baay Faal lañu ay alalu Serigne Touba lañu du ñu ragal dañuy fonce ñëw jël li ñu moom di bëggee ñëpp nag ah oui di bëggee ñëpp di kontaan si ñëpp. Mm-hmm. merci beaucoup. ok kontaan nañu.